عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق من كل قلب defal conférence bi wax ne sëriñ bii nga xam ne moo ñu tax a dajee di Maodo Cheikh Ibrahima moo wax ne jaam la boo xam ne moo woote woote woote bu kawe na man maay bunt yàlla maay bunt yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa huwa abdun nada jihaaran anna baabul ilaahi wa baabul amini kon mbokk yi si keppa bu suñ ko waaye si sant yàlla si bés yi nga xam ne ñu ngi ko jublu ànd ak ne mosuñ ko ñàkk jublu waaye li si sëriñ Mbay waxoon ne jamono dana gën jamono ngir dara bés dina gën bés ngir dara barab dana gën barab ngir dara kon ñun tamit bés yi nga xam ne mi ngi si fukki fan ak juróom yi rajab dëgg-dëgg mën ne si bés yi gën la si ñun nga xam ne Cheikh Ayni wax na si ne haaja fi qalbi kulli sujuud dafini mawlidi cheikh yi NDT bi ñu seen yi mooy ne lii muuru woon si xolam wala li nekkoon yéeneem wala mbébétam lim tegoon si kanamam na mooy objectif am foofu la bëgg a àgg yàlla jëkkër bi na ko xet gi xeeñ na ko si juddoog bi si tey ba kon suñu yàlla may ñu yee keppaari Maolana wax ne ndaw di jeunesse ban taxawaay la am si l'islam si société di koy waxtaan loo koo xam ne man dama ko tuddee modèle yi jeunesse muy taw yëpp suñ ko royoon toppandoor ko góorgóorlu si gannaawam ay jeexitam ñu siy jaar dëgg-dëgg rek dayoon na ñu ne conférence bi loolu la kon li ñuy waxtaanee tey ki koy waxtaanee ba symboliser liñ ko sant di oustaz Baye Mar kon li ñu xamee pay bi muy lépp loo xam ne dañ koy def dañ koy def ci jéego alquranul karim bi nga xam si gëstu yu ndaw yi am rek dama ne man dama ne alquran mooy karaama baay waaye alquran mooy siru baay te ñaar yëpp maa ngi ko wéer si waxi Maodo Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu bàyyi si moo wax ne fal xëj ala nabi ibsa kitaabal karimi karaamati ila liqaayika al azimi hum ahsanu amala وإنا dynamique que s'inscrit l'organisation de cette conférence édition 2020. Des moments forts, riches et enseignants, il faut le dire, mais aussi des moments de retrouvailles entre condisciples. Occasion ne saurait donc être plus élégant devant cette auguste assemblée. Pour exprimer toute notre à l'endroit de ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, Nous n'allons jamais cesser d'accompagner le collectif dans toutes ses activités en consacrant votre temps à cette structure. C'est d'ailleurs ce qui, ce nous faut tant de succès. Nous nous irons juste valoir tous les efforts consentis de part et d'autre qui nous ont fait alors d'agréer toute notre considération. Rappelons que notre référence et guide, Cheikh al-Islam Alaji Ibrahim disait que, je cite, Certes, l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Sur les jeunesses cultivées et douées de caractère noble et d'ambition. Love you guys. You are the happiness my life, my greatest joy and my greatest pride. These are a few points that I had decomposing consultation of our master, sometimes caricature, sometimes exemplary and perfect, whose name is Sheikh Ibrahim. May Allah accept our jihad. May Allah forgive us our peace and increase our love into our Sheikh Ibrahim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh Ahmed Tijan Sharif radiallahu and Sheikh Muhammad Amin Parallel Maitan. Thanks you for your attention. God bless you. d'honneur muy Cheikh bu ndaw suñu xarit la suñu soppe la waaye koo xam ne tamit kuy liggéey pays bi la donc suñu lu tax ñu ne tamit kàddu remerciement la dinañ mujjee li nga xam ne ñoom ñooñu ñooñu pare na muy des étudiants de Taïba Baye de de l'Institut waaye bi ñuy ñëw ñëw kenn dañoo ànd ak ay mbooloo bu bu takku yoo xam ne wax dëgg yàlla bu taaru euh, jiital si euh, ñi nga xam ne tey am nañ dafa jógee fii ba naan muy Cheikh euh, Cheikh Cheikh Moustapha Dramé nekk le le président de la Ligue des des des des petits-fils des figures des figures islamiques Sénégal def déplacement spécialement pour événement bi waaye ànd ak Cheikh Omar Fouta. ak Cheikh Tidiane Kane te nekk seen seen délégation donc ñooñu dañ leen di dañ leen di remercier bu baax si déplacement boobu nga xam ni def nañ ko waaye tamit yamuñu ci loolu bi ñuy ñëw ànd nañu tamit famille bi famille bi muy nga xam ni actuellement ki ko jiite muy euh, sunu nijaay euh, Mansour Ndiaye nga xam ni yegg si na ñu xam ni représenté nañu famille El Hadj Sadio Touré Bachar nga xam ne ñun sëriñ bopp ñu nekk ñoom tamit ay doomu pays bi doomu tarixa bi donc moo tax tam ñoom duñ leen ñu ko defee pare rek ñëw nañ jàppale ñu si liggéey bi xam ni def nañ ko. ñu ngi leen di tamit bu bu baax a baax suñuy sœurs yi ñoom ñëpp ñëw nañ euh, ñu jiital si suñu ngeen suñu mag muy euh, Seynabou Wade. ak lan satwaat bi nga xam ne moom. ñu ko ñu ne xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass kon bàyyi ñu ngi lay ziar ñu ngi ziar itam di nuyu Baye Mar oustaz Baye Mar ndax nag moom kàddoom rek ci xale yi buñ ko déggee njëriñ la ci luñ mën a nekk kon nag buñ ko tàmmee ko tànnee jox ko leen teen bi. yaakaar naa ni buñ fi jógee ku ku dégg li mu wax te jàpp ko loo ci jàpp rek dana la jëriñ yal na yàlla dëgëral kàddu di jaar yi itam suma soppe suma xarit Moustapha suma dëkkandoo la ñoo bokk dëkk ndaan li tax moom suma xarit la na lu mel ni ma ko ndax keroog bi muy def xeetu daaraam bi nga xam ñu bëri tànn nañ fa alxuraan man nii la ko pare woon kon kooku jox la cër yéen la jàmm ndax al ndax lépp luñ la pare rek jàmbale ne ci yéen surtout lu jëm ci diine xale yi nag ñoom leen sant di leen gërëm di sant itam di gërëm seen parrain seen marraine éternel muy Ndeye Fatou ak sëriñam colonel Barère Moussa Barère Diagne seen taxawaay ci xar yi rafet na yëmu foofu rek dañoo jox seen bopp pays bi yal na bàyyi méngoo leen seen dëpp aajo ñu ngi leen di sant leen gërëm di gërëm xar yi ndax pare éternel bu ñu la defee mooy dañ la seen bopp rek ndax ñu ñëw di dem itam bu ëllëgee bëgg nañ bu ñëwee nga ànd ak ñooñu kon yal na yàlla fay leen ñu di leen wax nag ni Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wax na nii ndaw yi ñoom ñoo yaakaar yi ëllëg ni yan ndaw lañ wax ndaw yi nga xam ni jub nañu topp topp nañu seen diine te itam ñu ngi sàkk ëllëg ñu jëriñ seen réew ci jaww yi lañ bokk kon am nañ yaakaar ci yéen yal na yàlla eggale leen ci loolu ñu di leen digal nag ngeen góorgóorlu ci lépp lu mën a doon ndax ko ànd ak koo nga xam ne bu la defaree ku ne ñu sopp la te jikko nag la ñuy sopp nga mën a ànd ak ku ne mën a nekk fu nekk la mu def ci yow moo tax loolu nag fu mu fekk ne ku ngi ci yow sa wax ak sa jëf mooy defar la ba nga nekk ab jullit un musulman accompli musulman accompli moom mooy kan mooy ki nga xam ni xam na li mu war a xam te ñu koy jëfee astaghfirullah min xawli bila amali et eh, yal na yàlla jàppale leen yaakaar jooju ñu am ji yéen yàlla nañ ci egg jàmm gis ko yàlla may leen ay diplôme danaa ba mu leen maye ay diplôme itam yal na leen yàlla may liggéey may leen njaboot bu barkeel ngeen àndal ñoom di liggéeyal diine di dimbali diine di dimbali ko diine yal ko yàlla def ci barke yu taamu sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh a Tidiane radiyallahu anhu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi di sant di gërëm ñëpp di gërëm xale yi di gërëm itam waa daayira Moutahabina Fillah ah luñ ma paree neel rek ñoom lañ koy jox ndax nee nañu mbooloo day am ci jiitu ci jiitu dafay mbooloo bi mbooloo bi itam doole ay des rëy laa mooy ki nga xam ne xol bi dafa laaw mooy ki nga xam ne jikkoom yëpp luñ sant la mu ne soo bëggee jël tabe baay da ngay jël doj yeeg yëpp si àdduna bi soo ko compter bàyyi faral leen kaw si tabe mu ne waaye kooku mooy ki wéet si jamonoom doomi ki wéet si jamonoom. waaye mooy texe ak waa jamonoom yëpp waaye nag mun a bàyyi li bàyyi ku bàyyi mooy waaye jur yi ñoo xam ne ñoom rek ñoo gën a kawe si biddiwu jamono te oustaz mi si doom yi bàyyi yooyu la bokk ndax bàyyi nee na laa ufarriqu bayna abnaa'il baari wa itbaa'il baari du ma tàqale diggante sama doom yu baax yi ak sama taalibe yu baax yi te oustaz taalibe yu baax yi la kon oustaz ñi ngi daan lay déglu te ñu ngi gëm ne danañ déglu njëriñ waaye nañ topp ndoor mag ñi ne la xuluuru xut بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ورضي الله عن مولانا أبي العباس سيد أحمد التجاني ورضي الله عن وارث سره وصاحب فائدته العظمى Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahim al Hadj Abdullah Niass eh, mbokki jullit yi sang yu góor yu jigéen Seydi Cheikh Ibrahim Chapour ibn Cheikh Mouhamadul Amin mbooleen kilifa yi fi teew yu góor ak yu jigéen ñi ko Cheikh Mahi di waxee sang yu góor yu jigéen yi te macha allah eh, personnalité yi fi dégg. ak tànneef yi ñu fi dégg mel na ni ñaan bàyyi nangu na ci waxtaan bi tey ndax tax ne lu nekk na ko tànnal la ci gën te dégg nañ moom Cheikh Moubarak ndax mu xadimam bi rek jox na ko tur boobu taalibe bàyyi Cheikh lañ limal na fi ay yoo xam ne tax na ñu xam ne ñaanu bàyyi nangu na ci waxtaan bi di nuyu mon colonel. Euh, al muqaddam ñaar yëpp laa koy booleel parce que euh, làngu arab fu nekk nii ci gaaye la bokk macha allah te dem na ba fu mu a kowe te ci ron baaba la jaar di nuyu pare yëpp euh, soxna madame Diallo ñu ngi lay nuyu bu baax dañu wax ne genn góor a gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko ni nga bootee xale yi ni nga leen taxawoo amul sikki ne représentant wu xalifa bi ci Dakar yëg na ko te lu mu yëg xalifa yëg na ko yaag sa borom kër noonu la mu colonel ak njabootam noonu la Moubarak ndokkeel di ndokkeel mbooleem ñu fi teew Cheikh Moustapha marhaban bi ko ñu ngi nuyu ñëpp di wàccee kenn ku nekk wàccuwaayam waaye ragal naa ne buñ ko toppee dana gudd te yaakaar naa am na lu ñuy nekk waaye yàlla parce que euh, ndigal lu am solo la Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim dafa mës wax doomam Cheikhu alxalifa Mawlaay Alxaaj Abdullah pour mu dem waxtaan benn waxtaan bi mu ñëwee mu ne leen xam ngeen ne daara waaye nag ndigal laa àndat su ngeen bëggee xam doo leen digal fàttaliku leen soxna su baax muy Seyda Mariam Ndeye Aïssa ba mu amee doom jógee ci man bu bees néew doole am lu mu lekk war a lekk te muy téye yaramam te booba tàndarma la yàlla programme benn daata tàndarma bu wow moo nekkoon ci peggam loxoom bu néew doole boobu bi mu amee ndigal yàlla ne ko gësamal bi mu ko tegee ci daata boobu bi la am sa la sax ay bànqaas ci saasi ak ay xob daal di meññ daal di rot moom daf daan wax moom moo laal xaajab bu laa bu ñu ko yebalee ne gësam leen su ngeen gësamee danaa rot ma danaa meññ te danaa rot man sañu ma ko dama gësam leen te ñaanal kon thème bi dafa am importance lool rawatina ci dundu cheikhul islam xaaj Ibrahim moom yàlla daf koo indi muy aw jënd nii xaqan li jabril kasri fa inna nii wakiilu sirri sirri lépp lu baax te amul rëng-rëng dafa ñëwoon pour jubbanti ko te lépp lu baax ci àdduna bi lay action di ko def ay ndaw ko taxawee ci àdduna bi yëpp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi ay dix-huit ans dix-sept ans suñ defoon gërëm chey suñu duggee fa l'islam di Arqam dul douze ans Ali ibn Abi Talib ñu àdduna bi xam-xam huit ans la duggee ci loxoom Omar ibn Khattab mi ci gënoon a garaaw doon ci gënoon mag moo Aboubacar passé toon vingt-sept ans te bala ñuy importance bi nga xam ne moom la période yu jeunesse am il faut ñu laal parce que euh, période yi nga xam ne mooy ñeenti période dañu xaaj lu doomu aadama ñeenti période mooy période yu xale mi ngi dalee fii juddu ba 14 loolu vingt deux vingt deux pour cent la ci dundu doomu aadama nga jël quinze ans ba quarante ans loolu mooy waxambaane mooy jeunesse mi ngi représenté quarante pour cent ci dundu doomu cinq nga xam ne mooy quarante et ba cinquante loolu mooy li wax mbañu rus mi ngi nekk mi représenté quinze pour cent ci dundu doomu soo jëlee li nga xam ne mooy li ñuy wax màggat nag moom moo dalee cinquante et un ba borom di faatu kooku vingt trois la représenté kon boo jëlee vingt deux jël quinze trois quarante importance bi am ci seen kaw dund jeune bu nekk bu góor bi ak bu jigéen loolu moo lay won importance bi nga xam ne moom la jeunesse euh, période bi nga xam ne mooy période jeunesse nga xam ne ci la nit war a tabax boppam bu ca àggee lu mu war a na ko lu mu war a mën mën na ko lu mu war a réaliser luy roloon war na préparer ab jumtuwaay itam ba nekk ci loolu nag suñ sëriñ Mawlana Islam Hadj Ibrahim daf ci doy exemple ndax koo xam ne bi mu at la dajal ba soora te raw na kuy maasam ni at ñëwee nit moo ñaar bi mu amee vingt la dajal moo leen ko sëriñ di jàng ci Sénégal bi mu amee xarafu ka la samp daaraam di jur ay masalaam boole ko makkaam xarafu ka mooy vingt ans léegi ittiwoo gi nga xam moom la sëriñ bi ittiwoo ndaw te xam ne ndaw mooy avenir te mi ngi ko jëlee ci yonent bi nga xam ne mooy sangam ne waxtu bu jéggee buy dox bu jéggee mu jéegoo mu teg tànkam am ñu dem ba ne takk ndeer mënta ak ki nga mooy jëmm jëmm mënta tàggoo jëmm kooku dafa wax ni dafa jox importance xam-xam lool ndax daf ne xam-xam mooy njiit te moom dafa dox ba dajeeg jëmmi xam-xam ba pare am ca ndigal gis nañu ne yi ni mu fooree bi mu demee nag ba nga xam ne moom yàlla daf koo indi pour mu jëriñ àdduna bi te lépp lu ñu war a def loo xam ne dafay am continuité dafa war a jiw woo xam ne jeunesse ba ñooy ñi nga xam ne ñoo koy taxawee mu gis nag ne xam-xam mooy élément parce que rôle ngeen wax rôle rôle jeune jeune jeunesse bi rôle la mais rôle balaa am borom rôle bi dafa xam li muy def mbaa mu man li muy def rôle soo am foofu la importance xam-xam di ñëwee balaa rôle di am ndax bala ngaa am rôle di ko def da koo xam baa nga man kon soxla na xam-xam soxla na expérience comme ni ko Moubarak junjee léegi te nekk ci INSID ñoom ñëpp di gërëm daayira bi nga xam ne ñoo ñu invité te organisé li nga xam ne daje fi nuyuwante rek ay taalibe bàyyi ay soppi day na réussi kon léegi gannaaw xam-xam mooy élément bàyyi bu fekkee ne mi ngi formé jeunesse yàlla jox ko lu em ni fayda tijaaniya responsabilité rëy rëyaay boo xam ne moo taxaw ca lew na ci kanam kalifa baayam ci kanam adduna bi yëpp def déclaration boo xam ne kenn mosu koo te kenn dootu ko wax bi tukki mooy buntab yàlla baa ngi nii ci kaw suuf te mun ci jublu représentation bi nga xam ne moom la amee ci Cheikh Ahmad Tidiane ak yonent bi ne gaay yaa ngi sa borom a ngi ci jàkk ak janoom ci lu dul benn lënt kenn dootu ko fi wax kenn kenn dootu ko fi defal kenn lu mooy ku jaar ci jaam bi mbaa ku jaar ci jaam bu xeebu bii fii bu tëf tëf yi woon ba àdduna bi te ba mu ko waxee ba léegi bu doon waxee politique conférence de presse yi bëri waaye ba léegi kenn ñëwu koo wax li ku wax ne ku ñëw mu ne la yaa sa borom ngi ci jàkk ak janoo ci lu dóor benn lënt ku ko oote woon tey ku ñëw doo xam koy jaar looloo tax ndax moo ko moom mu toj àdduna bi yëpp nag daal jël jeunesse bi favoriser leen pare nag jëmtukaay bi ëpp solo mu njëkkee ko ci ñoom ndax Ali ibn Abi Talib daf ne élève bi njëkk ci yonent bi li ko njëkk a mooy gëm yàlla gannaaw nga xam-xam njàmbaar te yooyu yëpp tëri na ko gisuñ tam tey léegi nag rôle bi nga xam ne mooy rôle jeunesse bi ci société loolu ba la cee ñëw dama ne rôle bala nga koo bala ñoo war a xam lii sa lan mooy la nga ne lii moo la ca war ak nan la Cheikh Ibrahima nag teel a loolu ndax dañ ko ko moñaale mu gis ne xam-xam muy jiit mu taalif ci téere ne tafsiratul anam fi anna al ilmu huwa imam laysatil maalu huwa imam alal du jiit yax bu askan du njiit xam-xam mooy njiit ñu ne ko loolu ci tegtalee mu ne ba ma demee ba Égypte ci capitalu xam-xam ñu am looroon juróom-ñaari condition pour nga jiite El Azhar mu jumaa ji gën a ngand université bi gën a ngand ci àdduna bi am junney at ak lu teg condition yi bokk ci da ngay nekk égyptien say ndey ak sa baay ak sa maam nekk ko nga jàngee fa ba am diplôme ya ñi nga xam ne ñooy kàngam yi ngànk université bi toog seedeel la ci sa jikko ak sa mënin ak sa savoir faire ne mat nga ko mboolem condition bàyyi na ne ba mu demee benn la ci amoon mooy xam-xam te terewul moo fa te ba mu fa jiitee ñoom ñëpp nangul nañ ko ndax ki nga xam ne moo wàcc commenté pour pour bëgg daf na jàngaat nañ tey yaaram nangu yaaram nuñ koy làkkee mu wér nu ñuy waxee alquran mu wér ak itam fasaaxa éloquent ndekete bu xol moo gën a wóor bu làmmee pour la bañ du passé nopp mais bu xol ci xol lay kooku nag ban importance la jox ndaw ñi ak nan la leen ko joxee ak ñaata génération la préparé génération yooyu nan lañ jëriñee seen euh, seen société loolu euh, incha allah danañ ci dem ñu njëkkee Cheikh Ibrahim euh, importance bi mu jox ndaw daf ko dalee ci ba muy xale gis nga xale bu amee 6 ans Oustaz Boram Diop moom ci cinq ans la ñëw six daanaka yaayam jeexal ci moom nag nee na abnaa ixwati wa ahlil madrasa ahibati fa tursilul wildan kay yatraqu wattasiba alqur'ana yéen samay soppee emale ko ci taalu ba ñëw ci njaboot yónnil leen ma xale yi ñu jàngi alquran gis nga xale bi moo kalee alquran ba mu ne yaayam tey am nga wurus woo xam ne kenn du ko sàcc te du lakk te bu gis gën ci jotee moom lañ la defal ndëppal or nga gën rafet buum yëpp bu paree ca loola comme na ko waxee woon Sayda Mariam bi mu tëree alquran ci ñetti fan mu jox ko fas ak nagu rat bu ànd ak doomam ak ñaari lemi door Sayda kontaan daal di ñëw ak yéreem yu rafet mu ne ko ah Mariam da ngaa foog ne pare nga da ngay bétti alquran. mbir mi mooy nga bind kaamil ba mu gis formation bu am doole. gis nga buñ paree ci alxuraan yooyu ba pare ci la wax wax bu rëy bii ne ne inna barakatal umri hiya zamanu siba fa man lam yataawad ala cheyin fi sibaahu ida xaawalahu baada alkibar imma ak chalamat yaan bu des ba bu ngeen amee temps bu xoolal bu ci mujj mu ne képp koo xam ne bu jant bi fenk du la fekk ca tool ya Cheikh Montenegro mu ne leen nag bu ngeen na ngeen ko def ca programme bii ma leen di te ngeen jéem a xam mboolem masala yi te bu leen ba dara wala tatlubu fannan amul benn matière bu mu a doon ba ci médecine boo xam ne yéen da ngeen ko ba dinaa la benn benn waaye ko wax mu ne leen tawhiid ko réeree doo xam yàlla fiq bu ko réeree faase mu lay jàngal njàpp ak làpp si li bu yàqoo noo koy defaree Laxdari yu mboolem borom xam yi maroon ko fi jàng nañ ko ñu bëri dañ koy sàgganee ba doon mag waaye jàng bu wees ku réeree fiq te dana faase yu xamul nooy defaree si julli bu yàqu sooy bu uti ku la ko jàngalee ñaareel ba mooy leen grammaire ku ko xamut moom waxtu mbooloo mi toogee di wax yow ñëwal sa gémmiñ booy wax ñu reer parce que mënoo conjuguer benn verbe mu jóg soo bëggee wax da wax ay aajabulaay moolaay wax na ne bàyyi ko waxoon ne ko doom jàngu tëri feni neen su yeboo ngeen jàngi bi mu paree mu ne leen euh, li nga xam ne mooy calcul mathématique ku ko xamul nooy séddalee xesa nooy séddalee ndono bu nit dee nooy miraasee boobu ci 25 ans am de professeur bu 25 bu amee élève yoo xam ne ñoo ne ci ronom ñooñu lay waxal ci jamono jooju 1925 ne leen nag bu leen fàtte médecine ku ko xamul nooy fajee xoolal boobu yitte bu koor kazalika ilmu tibbi tashfi wa tashtafi boo ko xamul nooy def mu ne leen nag wala tuhbilul quran hmm? bu leen nee bu leen bu parce que fawaasir yi ci nekk maa ngi gëj ci sama dund bi man bàyyi ne gisuma lu ko gën a neex boo koy loolu mooy programme première génération bi bàyyi jëkk yar sëñ Daaliou sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Ibra Fall bay euh, bay Cheikh Omar Touré ak Serigne Aliou ñooy bokk ci vingt cinq ans deuxième mooy ñan mooy taaw Mawlaay Alhaaj Abdullah mooy génération yu xolafaaw yi Cheikh Ahmed Daal Cheikh Ahmed Tidiane ba ci seen caat Oustaz Barham Diop Seyda Roqiya jigéen ji njëkk a taalif ci Afrique nit ku ñuul taalif téere ci l'islam boo demee ci teesu Amar boo effan da ko fa fekk 1973 la ko indiloon Baye ma ànd ak baaw ci néeg Baye ci laa ko gis lu leen Baye wax bàyyi daf ne leen génération bu njëkk bii nga xam ne nanaa leen bu leen bàyyi benn fan ñooñu ñooy seen exemple te école yi nga xam ne ñoo jógee ko ci ñoom te ca la leen bàyyi dugal ndax xaajatullahi alxalifa mawlaaya bàyyi bi mu ko joxee bàyyi raja sa ba pare ci alquran daf ko indil rabbaani mu defaral ko làmmeñ jàngal ko ardu benn hadis moom ak Sayida Fatimatu Zahra yaaye imaam yi ba pare jox ko Sayida Ali ba mu paree nag mu yóbbu ko agrégation jël ko mu jàngalal ko noonu la def ak ñoom ñëpp ñooñu lu mu leen wax daf ne ko samiya walidi a samiya walidi a cheikh wa cheikh ahmadu bihim di sëñ Aliou sëñ Ousmane Ndiaye génération bu njëkk boobu royal leen ma leen te jum bi nga xam ne mooy lampo xam-xam bi tàggee ci daara jooju mortal ba ma amee vingt ans ñooñu nekk samay premier élève ñoo xam ne ñoo njëkk agrégé ci man dama leen jum boobu taal boobu lampe boobu euh, euh, projecteur boobu bu mu fay mukk loolu mooy seen ñu bàyyi sas boobu ba mu rafet boo ci jógee nga ñëw ci troisième génération mooy lan nazirul umma maahil kuf dégg nga aminul wax yi haadil bashar dégg nga euh, aaqibu rusli almamun makki alxasan génération boobu ñoo ñooy troisième fédération lan la leen bàyyi ñooñu la bàyyi wax ne inna barakatal umr hiya zamanu siba a man lam yataawad ala cheyin fi sibaahu ida xaawalahu baada alkibar imma yen yataazara aw yataazara barkeb dudd mooy jamono jeunesse quatrième maa ngi sant yàlla fekkee naa ndax ponkal moomu ak yitte yim amoon ba ne ma su ma fàttaliku fu ma nelawee lu ëpp deux heures de à partir de 1930 ba nga xam ne yàlla jox na ko li nga xam ne moom lay tettalee àddina bi yépp mu pare cee boole nekk lépp loo xam ne war naa jëriñ société ak bépp rôle bu ndaw rôle bu ndaw war a taxawee mu boole ko ca nee na mënta am temps bu ëpp deux heures de temps ñeme ko nelaw mbaa mu sañ ko nelaw ndax li bëgg a def ci àddina bi temps bi te mos sa fàttaliku nee bu amee lu ko yitteel deux heures de temps yooyu daf koy lekk fàttaliku woon foofu mos a fay kooku leneen la amee troisième génération bi ñooñu dañ foog ñu taxaw ci parce que ñooñu bàyyi daf leen a jàngal ba li ba léegi li ñu war a jàng jeex muy déglu London di jàng journaux ñu koy invité muy déglu adduna bi. ba xam ne ndekete àdduna bi ëpp na fii Sénégal gën naa yaatu te golob bi yëpp dafa nekk benn euh, village ci la jël décision jël ñu fukki doom ak ñeent ay taalibe ak ñu jur yabal leen Égypte ci université bu El Azhar xoolal dénkaane ko yi mu leen di dénk su ngeen demee na ngeen sàmm seen diina te ngeen ragal yàlla moytu leen ma àndandoor yu bon moo xam bu góor waaye rawatina bu jigéen ba bu leen tilimal seen jikko ci benn gàcce rawatina gàcce bu yóbbu safar bu leen laal cigarette bu leen àndandoor ak àndandoor bu bon te yéen ñëpp na ngeen benn nekk benn kenn ku nekk di seetu moroomam xoolal bàyyi ji am ni bàyyi di yebal nit ñi gis nga xaalis bu miche bi lettre boobu daf ko jël tuddee ko constitution bu bu yi bu élève fu mën a ne ci àdduna bi ne nag du ma leen bàyyi danaa nekk seen baay ji ëpp yërmaande bépp ñëwati ci jox leen lu ngeen di dimbandikoo ak di leen ñaanal yàlla ak ci zaahir ak ci baati aux conditions ngeen nekk ci li ma li ma leen teg te mooy yoon wi ma leen teg bu leen ko soppi mukk ndax sama bàyyi ci la ma tegoon bu rëy ne nag su ngeen demee na ngeen delsi di ay ulama borom xam-xam di ay borom doctorat di ay borom spécialisation yu nekk Égypte bu leen fa mat dara su ngeen ñëwee nag bu leen jël njëriñ yemale ko ci seen bopp da di jël njëriñ indi ko ci seen waaso seen xeet seen ñoñ seen nation jëmale ko nag ci àdduna bi yépp man bu may préparé jeune ma ne du ban par international la bu may préparé noonu ngay doon. kon taxmiloona nafa ilal aalami ajma jëm ci àdduna bi yëpp jeunes yooyu bi leen ko bàyyi di wax boobu c'était 1963 moo fi njëkk a wax mondialisation yebal ay nit pour préparer leen defar leen formation te yaakaar naa ne résultat bi buñ ci àggee da ngeen ko gis. quatrième génération Maxtaar Doomo imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mii nga xam ne keroog bi mu yéegee minbar bi avant mu wax benn baat kenn nokki woon mais li ñu amul ci formation Baye la bokk ndax Baye jàngale na ba 1973 man leçon yooyu jàmbu xew bi daan na ko fekkee am na yoo xam ne guddi la doon doon ñu ngi ciy gërëm Baye sang bi toog mooy li la Lamine doon wax ci net bi fan yi ñu bëri di ko commenté ne dama daan ànd ak moom ci Baye mu jël loxoom teg ci boppam mu ñaar di ko ñaanal macha allah ñu ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla léegi laa jógee ci moom mu ne mu roxul xut kooku génération boobu bàyyi dafa ne leen da ngeen di indi njëriñ njëriñ seen ak seen bopp seen seen réew seen nation adduna bi yëpp xanaa kooku ñu commencé définir lan mooy rôle jeune ci société te ba muy dem xam nga lu mu leen wax daf na leen yéen ñëpp mën naa leen a jàngal ba ngeen bay jaaw te da ngeen ma àgg ci cukk cukk mooy lem-lem bii ci roxo lem bii au condition doo dalee ci tànk ba ba boo dalee fii doomu ma agsi fii te wax na dëgg ñooñu ñëpp si ma génération ñeenteel bi maa ngi ci fàttaliku Muxtaar Domo di ci fàttaliku Sidi Arab gannaaw tàkk sàll la daan jàngale téere bu ñuy wax cent franc ci li ma fàttaliku moom la mujj jàngale imam Cheikh mi mooy góor nu muy doyee góor te moom formation emut ci téere yi da koy wax di ko jëfee ak yow bés am na soxna soo xam ne dafa ñëw gaare benn set place ci mbaar mi ne imam Cheikh mii ne ko Cheikh Tidiane demal ci sa mu may la moo ko yow mu dugg fekk bàyyi ni leen koo soog yow sant Birame Diop day wax ne bu nit ñi xamoon bàyyi du tëj néegam delloo buntu rek ma sama fekkee lu nekk foog ñu nekk leen ni muy laajee laaj koloñ bu ubbee laaj koloñ bi day sànni saaj parce que day jeex lu mu cher cher cher au califa bi yu su laalee ba pare jox ki ci ndeyjooram muy tourné di tourné di tourné ba agsi ci moom mu dee taatu butéel bi wicc ko ci quatre coins yi béréb ko mu fekk saaj noonu lay laaj la ko comme ni mu def xaalis ci poche bés mu def ko benn waaye xaw ma sax la de bi buddoo bi tey bi tourné baax si moom mu ne ba sëñ bi de moom la ko barke mu ne Isaaka jox ko saañ bi jox bi jox ko gi teg ba ci loxom bi ci poos bi muy génnee loxom bi ñu am ku fugg bunt bi ñu Isaaka ubbi muy benn aw sa bu dugg ak ñaari douzaine ci même bouteille bàyyi daal di lay daal di ne boo joxee li ci tey ko rek li ci poos bi buy génn rek li ci tey ku ñëw infiniment bi jee bi yaa ci nekk toogaay la yaa ngi dégg kon ñeenti génération defar na leen jaam bu xeebu bi donte moo ci gën a lekk léegi ci quatrième bi la ko imam Cheikh mii ma nga woon ca digg ba may na ko téere jàngal na ko jàngal bu dëgër waaye ki yónnee ci biir mu ñëw bokkal la man la Tijaan Tijaan lan la sama nangam diw moo ma yebal ne ma ñëw nga may ko mu ne ko toppal fële war a jiite jumaa jigéen ji la yónni li ngi dégg boo formation waaye ba mu fa génnee sa bi mu ne tël ci baal mu ne ko ah ana mu ne sa maam mu ne ko xamu ci dara voilà formation yooyu daf ko daan ko daan ñeenti génération yooyu mu pare pour kenn ku ci nekk xam lan mooy soroon ci société bi ak loo war a taxawee xam nga wax na ko ci ci lettre Caire su ngeen ñëwee ngeen jëriñ seen waaso njëriñ amul fu mu tënku dégg nañ ci mu baar am na jo am na am na am na wàll goo xam ne wàllu économique am na boo xam ne wàll social am na wàll boo xam ne wàllu xam-xam la am na wàllu boo xam ne wàllu boo xam ne wàllu boo xam ne ba wàll yëpp jeex fu ci nekk bàyyi préparé na ku gën koo xam ne mën na faa taxawee li des kay mooy coordonné comme ni mu baara di def ak waaye si léegi nag suñ buggee xool bu ñeenti génération yoo xam ne bàyyi formé na leen ne bu leen bàyyi benn matière te yemu ci ah bàyyi yemut ci wax ji daf doon taalif programme mu ruuxul adab moom colonel Thiam ngi nii muqaddam yëpp xam nañ li ci nekk éducation bi nekk ci ruuxul adab li ma xawaaw min hikamin wa adab jeune ab jeune ñu ko jàng te jëfe ko yaa fi gën ci ko te da am jom te koo xam ne boo jàngee loolu boo utee yàlla am ko looy wut mu tëna bàyyi taalif benn bés li ko dalee Maroc ba Sénégal am benn litre boo xam ci ci sarfu lay doon ci ba am ki ko taarif dafa contre Cheikh Ahmad Tidiane keroog ba ko bàyyi yëgee la contre livre bi ne Seydaal yu ma koy di weex ko ñeme Seydaal yu andil ko mu taalif bi bind ci ci benn bés laa ko taalif Seydaal yu bu koy jàngale daal de sëñ bi de moo wax loolu waaye ñun xam nañ ne genn wàllu bés la ndax bi ñuy dem tool laa ko jox te bi ñu wàccee fekk nañ bi faj lan mooy téere ba samaytuhu bi tuxfatil atfaali tubdiluhum xaqaa'iqa al afaali min al binaa'i wa kasmi faa'ili wa kasmi maf'uulin bi baslin saa'ili te woy naa am xam ne benn yaram mënu ci dara gars yi dem kooku dóor ku tëdd di ray ko dafay tër dafay programme bu ñàkkee mu taalif programme ba pare tëral leen ko jàngal leen ko ba ngeen dégg ko boole ci di leen examen examen yi def na ko benn xale bu jigéen doomam daara ji nga xam ne moo nekkoon ci biir këram ñu tuddee ko alfallah euh, journalu bi ñu njëkk proposé fii ci Sénégal war ko def foofu la ko proposé euh, xaritam bu dëkk euh, Njaay yi ñëw seet si ko mu ne ko nañ dem ci daara ja nga xoolal ma xale yi ma laaj say da roqee boobu sas Barham Diop ak segul foofu ndax daf koy tooñ daf naa ko oustaz mu ne ah ma ne raw waaye waañ wi moo ma sob ba léegi nangu naa yaa raw xool jigéen ñi ñoom ci kër baay biñ ñëwee gan gi ne baay bu nga wax gan gi niveau formation bi nga xam ne moom la góor a jigéen am ci école bi man am tuum ñëpp sëkk kenn wax doom jigéen dafa gaaw a comprendre papa Seyda Roqeya ne jàkk papaam gis mu ne ma dafa mel ni dafa xaw a lem dox gi daal mu ne fojjat daal yëkkati loxo nahnu fityatun wa fatayat hawla muallimina nadrusu l ilma wa natadaarasuhu dégg nga wa nasluku tariqa ajdaadina allazina sabaqu ahla zamanihim li nudriku ma adraku wa nudaariku ma faatana ñun ay xale yu góor ak xale yu jigéen wër suñu ustaas di def na suñu maam ya defoon jaar seen yoon te ñoo rawoon ci mboolem adduna bi ci xam-xam ñun nag dañoo jaar seen yoon pour jotoon yëpp ñu def ko lépp loo xam ne moom lañ tardé jotuñ ko ñun ñu rattrapé xoolal loolu professeur bi bàyyi ma di nga xam ne moo jàngal ñëpp naxu parce que école yi nag Medina kuy wax xam-xam da nga wax école Serigne Aliou fa la Mawlaay Alxaaji Abdoulaye jàngee ak génération da wax école bay Amadou Thiam mi oustaz di tuddee Amadou Thiam Njàmbe nga xam ne buy làkk arab te du juum mooma mooy jàngalekatu grammaire bu mag ba ah mu moo daan jàngal ñii kooku mooy professeur bu fa bàyyi teg kooku nekk professeur bu ko motee ne ko xale bu jigéen bii wax wax ji mu wéree nii haadihi lfataatu tastahiq aljaayisa kii yow la ñu jox ko prix góor gi bàyyi na ko lool jàngal kayit ba daal dina ko aataytuha alfan wa dinaaran wa in zaadat sitt jox naa ko junne teg ci bu doolee ma doon li bi keroog ba mu njëkkee taalif téere loolu la ko wax kon bés danañuy xutba ci gàmmu bàyyi foofu rek la daan kayit di ko xool pour encourager ngaw yi ci ñu bind discours mën a wax ci kanam nit ñi def na ko sa Braham Diop sa na demal bind Seyda moom dafa nekk ca waañ ba bisu gàmmu dégg nga ma sëxët lool bi mu demee ba ci biir bi ci biir ci biir ñu fekk ko ca waañ wa ma nga sëxët lool ñàkk Cheikh Nazirou moo daw ñëw na ko ca bàyyi mu ne nga ñëw jàng sa xutba bi sa discours bi ci gàmm gàmm international àdduna bi yëpp am mu ne ko ah Nazirou man aw ma ko ma téye suma reer te sangu ma solo ma ne ko ca dara mu ne moo la fi bàyyi soxna si dafa jóg rek bétt benn garaam bu teg ko ci bi mu ne woon ci wàññi fekk bind na xutbaam ndax bàyyi waxoon na ñëw egg minbar rek toj ko Afrique yëpp di tàccu mu dawaat ca waañ wa teg plat ba gis ngeen soxna soosu ci formation yi bàyyi pour rôle ak de la société ngeen wax lii daal jigéen léegi di nattu ñaanaluñ ko kenn muy jëkkëram jiitu mu def musaa googu di téeñ xam nga maa ci yor yor yi ñu ko sañ a wax danañ la jubloo xarfu jublu loolu penku teg loolu bant sangu loola te loolu yëpp xamoon nga ko waaye bu ñu yóbbaalee àndara ñu ci lu ci bëri lu ci bokk moom mi jàng ba taalif téere daf koo xeex dafa xëy bokk nekkatam rek dugg ci biir marché bi ku teg sa jaay lu mu rafet rafet mu teg ci loxo ne la lii ñaata bañ pare mu jël avion ak tinjam daal di wàcc Koweït ñëw tabax jumaa tabax école di génne ay baccalauréat yoo xam ne niveau international foofu mën nañ ko dugalaale ci résultat yi formation kon nee naa leen bàyyi formé na ñeenti génération yu garaaw mais président dafa wax ci discours am léegi euh, phrase bu garaaw mooy foofu nag la bàyyi di définir bu baax a baax a baax ñu dugg ci thème bi nag ba mu xóot ndax daf ne leen taamut bu ngeen demee keer na xóot xam-xam ba ngeen di indi bu leen cof bàyyi dafa wax comme ni ko président bi waxee léegi nee na avenir nation bu ne mi ngi tege ci loosu ndaw ña ndawi nation boobu waaye du n'importe quel ndaw du ndaw lu ne ñëw la ñuy séntu ci yow avenir mu ne ko mooy ban ndaw déglu leen critères yi mooy ndaw lu am culture foofu foofu ñu taxaw lan mooy culture kan mooy l'homme de culture kan mooy musaqaf kooku yombul soo demee ci définition yi culture am na ñoo xam ne dañ naan la mooy ki kam lépp ba fàtte lépp. lu mu bëgg a def fàttaliku lu mu bëgg a wax fàttaliku xalaat bu mu bëgg a génnee pour jëriñ nation pour jëriñ ñi nga xam ne ñooy tànnee réew mi pour pousse leen ci ñu jëriñ réew mi loolaay ñëw comme élève bu jàng di def licence euh, question bi ñëw euh, cinq questions yi nekk ci page bi jàng na mboolem téere yi mboolem programme yi jàng na ko ba mu seey ci biir yuróom gi gis nga bu ko tegalee kayit bi xamul dara avant kayit gi ñëw dara xam bu question yi agsi rek question yi ñooy sélectionné man li may wax te étudiants yi léeg-léeg mooy bu ñëwee njëkkeel ba gën a yomb donte troisième question la dama troisième page soo ko defaree sa appétit dana ubbeeku nga ñeme léegi nag mu saqaf boobu bi Cheikh Ibrahim jublu ci ne bi muy def critères yi nga xam ne ndaw loo xam ne war naa am rôle ba njëriñ réewam mooy ndaw loo xam ne lu am culture la borom culture mooy koo xam ne dafa dajale ci xam-xam li ñu war a dajale ci xam-xam te mu war a ci ay maarif ak yu ulum dajale ko dajale yi boo xam ne bu tegee ci lu leer la ba pare am moyen boo xam ne loo lépp loo xam ne lii moo xew di ay phénomènes yu xew ci société bi yoo xam ne ay obstacle la war koo jéggi dafa war a am capacité bu analyse mën a analyser maanaam li ñu wër ci ay xew-xew ak ay jafe-jafe ak li gis ne moo ñu tàddeel ak li gis ne moo ñu tere dem loolu yëpp moom daf ko mën a jàngat analyser ko génnee ci xalaat ba pare xalaat boobu ñi nga xam ne ñooy nuxba ñi nga xam ne ñooy tànnee fi nation bi mu mën koo àggale ci ñoom ba ñooñu jóg yëngal peuple bi pour ñu def pour ñu pour ñu changer jëm ci la kooku mooy homme de culture yombut kooku la bàyyi di wax ne ndaw loo xam ne àgg na ci niveau boobu moo taxoon mu ne su ngeen demee jàng leen lépp te jëfee li baax moo taxoon mu waxoon ñoom bay bay ñoom sëñ Aliou même bu fekkee médecine la bu leen ko bàyyi kooku bu paree ci loolu bàyyi wax dafay nekk homme de culture homme de culture boo xam ne lu ne dana ko mën a analyser maa ngi waxtaan ak suma soxna euh, benn somme bu ma génnee am fu ma ko jëmee Euh, fàtte ko ba jëmee ko feneen foog ne dafa réer ci néeg bi wër ba sonn ndekete man maa koo dugal feneen sama xel daj benn waay bu ñu mag ñi nettali woon ñu ne waa ji góor gi ci laa jëlee exemple bu simple ci kan mooy euh, intellectuel waa ji mbaam la war jënd miis mburu mu mag bi bokk nawet nag mburu day neex xam nga sàll santam déet pour yitaale ko xale yi waaye li muy yëngal tànk yi di mbar mbaam mi dem di dem ci village ba léeg-léeg mu damm ci mburu mi mos dem ba mu yàgg mu lamp loppitaan mi daju dara mu xam ne mburu mi dafa rot mu dëpp di wër mburoom dajeeg nag koo xam ne ci niveau boobu borom culture la mu ne ko góor gi lan la baa jàmm la mu ne ko du jàmm la dégg nga camp bi moo doon yët xale yi moom laa bokkoon di ci mos ma dem ba mu yàgg rek mu rot mu ne ko rot mu ne waaw ko waaw may ma tuuti góor gi mu mu ne ko bi nga commencé jotoo woon benn mu ne ko ankay ne ko bi nga beneen bopp mu ne ko ankay mu ko góor bi mburu bi yaa ko lekk mburu ñaari bopp la kooku intellectuel la situation bi paa bi bàyyi perdre temps dem uti mburu loolu mooy liggéey intellectuel situation économique nii la ci def ni góor gi def ci mbaam mi am situation situation bu mu mën a doon nii la ci war a def te xam na ñi nga xam ne buñ dajee wax ci ku amee décision bi ak koo mën a doon da taxaw déglu leen te su boobaa danañ boole couple bi yëpp nga jaar ci ñu jaar bu fekkee dañoo bëgg avancé kooku moo mën a former ndaw loo xam ne dafay am rôle ci société def ko ba mat sëkk kon loolu lañ di tax bàyyi ne dafa war a nekk intellectuel dafa war a am yitte ju kowee ñàkk yitte baaxut ñàkk yitte baaxut yitteem jëm moo gën a rëy gaynde mooy buy buur karaama yaa gën a rëy buur si dol fa yuy góor léeg-léeg naan dégg la euh, euh, xar mu fàdd bay buur déedéet xoob xoob la xoob muy ci boobu ni xam ne mën naa fukk xar maa war na tay la seen ma xam ko tay ba ba mu nit ñaar fukk kaaf mag ñi dañ doon wax euh, bu kowe dégg kon léegi suñu xamee ne kii mooy intellectuel te bàyyi ñooñu la defar à partir ba mu amee vingt cinq cinq ans la commencé di former di former ñu di former ñooñu di former ñooñu di ba baabaa ngi nii jógee koo bërki démb Cameroun Cameroun laa wax ministre de l'intérieur recevoir ko maa ngi toog te dañoo nekkoon ci couvre-feu waaye lam fa def moom délégation moom àndaloon bàyyi la ma ñu ngi toog lam fa def mooy lan mooy dañoo waxoon ne juróom fukki nit sax mënuñ fee amul droit daje ñu dajale ay junne junne fa nga xam ne mooy euh, stade bañ tuddee woon la Ahmed ay joo te moo waxoon bàyyi ne doo fi dugg bàyyi am aéroport ba ne leen moom de ëllëg dana soxla Sénégal dem France ñu ne ko da ngaa amee feebar ne noppalu rek jéem a àtte mu ñëw joxe nguur gi toog 6 mois dem ñu ne ko dara jotu la mun naa wax ab yoon ñu ne ko doo fi dugg te moo ayoon baay mi ngi fii yoof ñu suuf ñu ngi négocier yàq yi pour mu dugg mu tëfi ci maqaawal ne dafa am njëriñ mi de l'intérieur duur julli chrétien la waaye dana ma xam naa euh, euh, kii Jili Bay ah Jili Bay ak Duga Kebe ndax maa ngi daje woon ak ñoom ci Oufet euh, Boagne kon xam naa ñaan lii Baba Lamine def fii xam naa ni muy firi jël naa décision tey te jeune buñ préparé ngeen wax ko mu mën a jëriñ na ko waxuma nation bi àdduna bi laaw Afrique yëpp ak Europe ak Amérique mu ne leen jël naa décision tey lépp lu ñuy ci àdduna bi ci wàllu diine taalibe bàyyi ñooy kon léegi. formé na quatre génération génération yooyu mu formé bal résultat la am ci ay ndaw yoo xam ne seen rôle def nañ ko mu jëriñ seen société jëlal bu njëkk bi bay bayee ca biir gis nga ñooñu bi leen bàyyi defalee décentralisation bi mu leen formé bañ mën pour ñu dem jëriñi nit ñi jëriñ seen nation jëriñ seen société dafa seet points yi nga xam ne ñoo gën a feebal ci wàllu xam-xam feebal ci wàllu économique feebal ci li indi bàyyi mooy maarifatu billah mu def décentralisé daal ne ana Serigne Mbaye mu ne ko ñees mu ne ko laamaram laamaram la njëkk a du kër ma jëwee foofa la bay baraam mii ci kër ma jëwee di gàmmu gàmmu bu neex boobu foofa la juddoo loolu nekk ci kayitu juddoo magam fa la juddoo mu ne ana sëñ Ousmane Ndiaye mu ne ko ñes mu ne ko euh, Kër Makaan ji moo dell ak Taïba Niassène mu ne ana Cheikh Ibra Fall mu ne ko ñes du ko sidde kebbe man moo ma nekk ci làmmiñam suma nopp ne ma ba ma fa bàyyi yebalee gaa yi dañoo xawoon na siis ne teen ba ma fay gas du du du bënn waaye dam dam laa ko gasee nangam si ne mbatt ak kan Cheikh Oumar Touré nett naa leen muy décentralisation boobu mu def kenn ku ne ba nga demee samp nga daara formé ay góor bay mbay mi nga xam ne ci élèves yooyu la mujj taxaw kër ma jëbeel ba def fa alhaaji baraam mu def fa jumaa def fa rajo di di samp université ki nga xam ne moo amee euh, euh, euh, ci ambassade bu Égypte jiite mboolem égyptien yi fi jàngale dem na fa bërki ne mu ndax ci institut islamique wala jotulaay directeur Cheikh Mahi jiite ko fa la ci waaye bay mbay dafa wax ne bàyyi bi mu leen di commencé formation boobu maam El Hadj Abdoulaye ngi dund ndax buñ demee ba ci àll ba bàyyi dafay toog ci jaan yi bi dagg ay xob xobi poftan yii moo niru këy mu teg laati ko comme jukki daal di farank laayu ñoom bay baru ko mu ne kaay leen ma firi leen alxuraan ni ko sama bàyyi di firi bay bay moo wax ne saar yi nga xam ne moom la bàyyi firi woon ba ñuy ndaw di taxani di dem tool ba ma ko firilee ba léegi ba ma ñëwee ba mag ba mu firil ma ba ma kaaloo ba commencé di film kër ma jëmel teguma ca dara te ba ko bàyyi ubbilee film alxuraan ci kër ma jëmel Baye Mbaye moo wax ne waxtu takkusaan jotee bàyyi nga fan meneen takkusaan waxtu jotee bu ma séyee jukki bi rek dégg bàyyi dama Baye Mbaye bismillah sëriñ Mbaye bismillah ca mbir kon ñooñu samp nañ ay dëkk samp nañ ay école génnee nañ ay kàngam kon formation bi mu defaloon jeunes yi pour ñu am savoir faire ñi nga xam ne ñoo ci jiitu mooy première génération am na réussite totale 100 pour cent école bi ci la xalifa bi génnee Alhaji Abdoulaye Ibrahima Niass yàlla na ko yàlla fayal moo ma sa ne mosuma yóbbu nit mu jàngi ku ma yóbbu bàyyi ma yónni ba ci imam Assane bés bu ma mënee génnee nit mu jàngi yow lay njëkk doon jazakallahu anni kooku école Seydi Aliou mujj nekk di xalifa di bàyyi boobu formation am na résultat savoir-faire bi ñu bëggoon def na ko te mooy bunti mboolem awsa yi am na benn awsa bu ma imaam Cheikh nettali ne imaam Asana ko nettali bàyyi daf ko bindaloon li jaasa bu mat jox ko ci di euh, Seydi Aliou la ko booleel mu bindal ko mu dem bàyyi tukki si mu foog ne bu ñëwee mu dolli ko mu ñëw ne ko sëriñ bi dama ci bëggoon dolli ma mu xool gis si yàlla si ko kii dolli ba ko bàyyi déggee dootu am ba ko sëñ Aliou déggee ne ko dootu am benn xaraf ci am formation noonu la deuxième génération bi mooy ñan mooy génération xulafaa yi Mawlaay Alxaaji Abdullah bàyyam moo koy dénk tay ba kooku moom dama ci taxaw rek ci lu gàtt ndax kooku bi mu juddoo ba nekk ci euh, berceau dee dafa ñëw bu ci diggam li ñu lem ko ci mors bàyyi na ko yow mboolem sama doom yi dama leen jur waaye yow dama laa jënd mu ne ko ci nag mu ne ko biñ lay jëlee kuusi def la ci sa berso boobu dee jógee na ci sa tànk yi ba ak si jënd bi maa jël ñeenti kàngam jaar ak ñoom fi ma war a jaar ak moom bàyyi maa mu sopp mi moo koy jéema fii li ne bàyyi dafa leen wax ne leen sama doom ji dama am lu mu ci bëgg dee am lu mu ci bëgg seetal leen ma kan la yàlla ki njëkk ñëw mooy kàngam sëñ Ousmane Ndiaye moo ne ko sa liir bi gis naa àlloo ci penkam yi bàyyi ni ko loolu de baax na waaye Ibrahima bëgg ñëw ne ko gis naa ko mooy xam ne mosuma gis alquran ko baax na waaye bëgg na loolu keneen ñëw ne ko gis naa ko muy aalim boo xam ne boroom xam-xam boo xam ne adduna bi yëpp danañ ko reconnaître wax na dëgg fii ci Dakar ku la faaw yëpp daje biñ xutba ba pare balaa yëpp laay jógee ba boot loxoom yi xutba xalifa gën a mag moo jëw taxu ko ñaari loxo jox ko gajam ko ne ko maa ngi lay ndokkeel waaye maa xam nga ne sa mu ne ko xaqal mu ne ci teg ma ne ko lu mu ci teg mu ne ma ndax ne naxoo sa doom ma ne ko moo fa fekkoon mbaa kenn ci koo jur danañ la naxoo kenn ku naxee yàlla sa bopp kon kooku formation boo xam ne fu mu taxaw lislaam si keroog ba mu taxawee Faas ñu jox ko li nga xam ne mooy mbiram tijaaniyat yëpp Faas jiite ko mu nekk sa président mu nekk secrétaire général kàngam yëpp a nga fa woon keroog xol sedd la keroog nag fulla ak fayda ji ko baayam yare woon ne ko alaaji Abdoulaye duñ la war a sikkee bu jotee nañ la sikk keroog feeñ na ci daje bi may wax ki téye woon microcentral bi moo daal rajo rajo Ibsu Dakar la newoon ak télé bi génnaat na du ma tudd turam ndax ñëw na sax fekk moom ak moom ñu liggéey ci gàmmu Medina moo jot li mboolem xolofaaw yi keroog maa ngi ci résultat wu formation yi bàyyi ci jeunesse bi bi mu paree ban résultat la def ne mu jot lil ñëpp téye bi ñëw jiwlu ma ne ñees ma ne ko boo xanaa du diw mu ne ma ankay ma ne ko mbaa xam ne ne doo ma jot lil mu ne ma ah mbaa jàmm la ma ne ko du jàmm kay doomi commune ju ni yow di publicité sàngara ci rajo Dakar naan ak a neex buux leen def leen ni man man du ma def ni yow mu xalangu ci suuf ne ko torox naa ba ba may dee dootoo ko dégg sëñ bi ne ko ba ba ngay dee doo ma jottali tegel ma loolu mooy formation Cheikh Ibrahim keroog Abdou Diouf moo ko nettali ca tay bañu seen ba mu seet si ak Mawlaay Hadj ne ko Sénégal naroon naa am problème ci code de la famille bu taxutoo la xam-xamam sa baay ak njàmbaar culture am parce que formation bi ñu defal jeunesse yi ay dégg nga euh, ay procureur dégg ay juriste yóbbu leen France ñu sol seeni costume defal seen dàll yi ba muy melax teglante ko ci kanam sëriñ si di leen ak seen chaise demee eh eh demee di jàppal kaca mag ñu jox ko parole ñu ne moo mag mu ne nañ ko jox jukki sàngam bàyyi na ko déedéet gis nga confiance xam-xam njàmbaar intellectuel loolu boo ko boolee doo doo yomb mu ne ko déedéet téere boobu amul fii njëriñ fii liñ lekk ci xam-xam ba mu rees rek moo fi njëriñ dama ne bu fekkee mbiram at la ak ay daraja Ibrahima amul jël xoolal résultat bi El Hadj Abdoulaye ñi nii mën na leen a jàngal yéen ñëpp ku ko ñemee wax fii Sénégal xoolal faaw yi toog. mi ngi nii mën na leen a jàngaleen ñépp daal dina bu fekkee lu ngeen di laaj mooy lu lislaam wax ci lu ngeen bëgg a wax fii ak lu ngeen xalaat lu ci lislaam wax su ngeen ma ko waxee danaa wax lu ci lislaam wax te kenn du fi dindi Abdou Diouf ne ba ma déggee sëriñ bi wax loolu te kenn sëkkatu rek laa tourné sama chaise bi moo doon prés moo doon moo doon kii euh, euh, premier ministre jamono Senghor mu tourné chaise bi rek ne ko bi je la góor gi fudd gaa yi tourné seen mooy leen lu ngeen wax ñu ne ko dañu def code de la famille bu bees ebee premier article ku takk jigéen ba pare sartal ko condition ne ko su ma takkee beneen jabar te d'accord ci yaa moom sa fase bu la nekkee fase sa bopp loolu loi bi d'accord na ci lu ci lislaam wax bàyyi rek ne Ibrahima ne du ko du ko nangul benn jigéen du ko sàtt ci benn doomam jigéen waaye góor gu yambar ba nangu ko dem ba tribunal signil jigéen war na la obligation ku ko nangu ba signil ko rek war na gaa yi noté ñu ne ko ebee eh doomi njaaloo bon dana doon mu ne loolu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa cër la yoo xam ne yàlla moo ko wàcceel boppam ne buy jigéen juróom-ñetteeli alal bi jëkkëram moom la moom buy góor ñaar jigéen benn parce que góor bu cëb jigéenam jëlee benn moo mu jël ñaar moo koy dundal moo koy odd moo koy dëkkal te bu xewaamee moo koy jox lu yóbbu mu ne leen du doon amul cër te du doon waaye nag lislaam maye na ki séddale li nga xam ne muy miraas ne ko bu fa jege ñaale niw bi nekkee te warta am bu ko neexee mu sopp may ko kon ku sagar bale kooku toog suma deret bu neexee kii séddale mu sopp may ko waaye amul ci nii la ko toppee ba mu jeex kon daf ko wax ne ko bu taxutoon ak xam-xamam ak njàmbaaram konoon ba léegi réew maa ci problème ci ko de la famille yooyu critères yi ñu waxal bàyyi mboolem ñim yar moom la leen yare mboolem génération yi ñor moom la leen yare kooku mooy alxalifa alaaji abdoulaye bàyyi dénk ko tay buñ ko toppee dafay gudd kenn ku ne buñ defee soroon mais am na réussite totale xalifa Cheikh Ahmad Daal ci kanam moom ubbee jumaa ci xam nga dañoon dafa feebar mais mi ngi amee xaatir boo xam ne lu mu diir jam ci kaw lal ci jamonoom la jumaa formation bi ko bàyyi mu jël defal bu garaaw la mu dimbale ko lool bu respecté ko bàyyi ci àll ba la ko yóbbu Ndofane ca Cheikh Omar Touré moo jàngal tarifa bi alquran mu jógee fa ñëw ak ay piccam bàyyi na amul sambu amul dara gànnaar formation bu tàng jër keroog bi muy tàggoog bàyyi dem London moom xalifa moo ko mu ne ma acacia bi nekkoon foofu jëppal boobu bàyyi këram jëppal ñaari néeg la mooy néeg bi fanaan ak sàll saal baa ngi fees ak ay muqaddam keroog la war a dem London mooy yoon mu mujj ci Sénégal yónni ko ay mbir mu toppatoo ko mu wane ne ñemoo ma ñemoo ma dem tëdd hôtel wala ma dem fenn wala ci genn kër suma xarit bàyyi aw ma te yëguma ko ci noonu occasion yi xarit ko lii bi lépp paree ba mu ñëw jox loxo bàyyi tàggatoo ak moom tàllal bàyyi ñaanal ko ba lépp pare mu xam ne mi ngi dem. bàyyi am lu mu yëg bi mu ci biir bunt bi moom xalifa bi Cheikh Mamadou Tijji bàyyi ne ko hee mu gees mu ne ko sa ñaari mag yi xam nga leen xool formation ay xulafa bàyyi ñëpp xalifa lañu war a doon ndaw nga am loo dénk loo xam ne dana ko njëriñ ba ba mooy lay fekke yàlla na yéex ak junne junne ak ne ko waaw confirmation mu ne ko kan ak kan bàyyi moom bi avion bi wàcc London moo téye woon xet ba ñu seenee xet keneen téye ko ku mooy bàyyi rek ne yàlla def na li mu neex mu ne bëreet bu ko jóg bàyyi bàyyi ak doom mu ne ko toogal mën kan kan mu ne ko Cheikh Mahamad mu ne mu ne ko yaa ko wax mu leen déggal na leen topp na leen jàppale soo ko defee xol di condition soo ko defee kenn dem nga noonu la ko defee wallahi mos naa tukki di ñib si géej fa yàgg fa lool comme ni mu yàggee nii am ñu organisé teertu fekk sëñ daama nga tëdd keroog ba mu ko yëgee daf na leen heure sàngam na ngeen ñëw cinq heures de temps avant loola ci la bëtt guddi gi daal di daw dugg mi ne na ndànk ñemewul ñu teertu ko te magam teg mais tey bi mu ayee kan moo dem mu des kon formation bàyyi loolu la loolu mooy deuxième génération bi nga tëb ñëw ci troisième génération troisième génération mooy Cheikh Mouhamadou Nazir xam ngeen lu mu doon bàkkoo bala maa suufoo war danaa ko teg jàkka ab juma ba ak ak ak école ba mu bëgg dee def na ko ma nga gàmbi keer la ñu fekk ci dara nag fii la ma bàyyi joxe woon institut ca walaay ca matal naa ko fa la génne àdduna bërki démb leen jógee nee ma boo àggee rek xam ne Medina la te gàcce la woon moo ko gàcce la fa nekk ci yar ak formation ak ay école ak jaame yàlla yoo xam ne amuñoo fu mu dëkk barkeb dëkk ba président ba fa njëkk ñëw moom la ñu ko recevoir ci sëriñ di àll boo xam ne boo ñëwee ñëwee la fii moo fi njëkk ñëw ci ci ci ci mbàpp gi da da nga xam ne formation am na école yaa ngi suuf mi ngi fu mu tani mi ngi fu nekk lam doon wax def na ko feesal na suuf ak ay jàkk ak ay école moo nekkoon directeur bi 24 ans mairie bu Kaolack ñëw mbedd mi nga xam ne moo jaar ci buntu école bi ñu ko tuddee keneen sëñ Mahi taxaw résister maire bi toog mu toog mu ne ko doo am mbedd mii ki fi taxaw ñaar fukki at ak ñeenti di liggéeyal baayam di liggéeyal xam-xam moom lañ koy ma maire Mouhamadou Nazir lañ tuddee mbedd formation baa ngoog loolu mooy troisième génération ku ci topp Cheikh Mamadul Mahi bi bàyyam wàccee seesu firi alquran alaaji Abdoulaye toog bi mu wàccee moo toog mooy directeur bi moo amee culture bi fu mu taxaw pay bi yëpp sikki dégg nga kàlla Mouhamadul laa waa ji dafa na ko ma ne ma gaana léegi may la du gaana man fële laa wax Cameroun gaana 30 ans la fa baa keroog bi mu wàccee nii bàyyi nii dafa mel ni bàyyi wàcc yéen ñëpp gis ngeen ko ci net foofa nag danaa fa jógee ci formation nationale dem ci formation internationale muslim euh, Globos muslim association formation yi jeunes musulmans yi nekkoon Ghana tuddagul Ghana Globos la tuddoon kurma jógee London defar parti ñi parti ba nga xam ne moo nekk au pouvoir nañ ko créer ko bañ tëj ko ci kaso bi mu dégg na sëriñ bu garaaw agsi na fii mu daal di fexe ne dana génn gis ko nañ fay làmp yow bu dugg ci kër ga daal di ñëw sukk tàllal bàyyi loxo mu ne ko loo bëgg mu ne ko glucose am libéré yow ma nekk président bi déglul bàyyi nee naa leen mooy nga am intellectuel mu ngan da mën a analyser situation xoolal ku ñëw ñaanal a nga bi président boo doon da ngay xalaat bés bu nee président su ma ñëwee lu may ko ah dëkk bi dafa bëri jullit de mu ne waaw ah, mu ne ko soo nekkee président lan mooy doon seen cër ak lan mooy doon seen wàll mu ko naa leen jox seen raam ba mu doy bàyyi na ko taalal la est-ce que moom sëriñu em ci der bi ak ci jumaa ji la déedéet ku wedde laajal dégool gis ngeen pancarte yi ñuy wax ci place de l'indépendance gars yi dañoo sàcc film bi gis nga bi mu jaxasoo ba métti bañ tegal déggoo reer nanguut a reer daf ne Alaaji Ibrahima Niass xanaa nekku fi ndax bi ko almaa yi bëggee rey dafa doon làpp dafa doon dajeeg moom gàm bi mu ñaanal ko yàlla mu gañ muy leen xanaa newu fi ñu ne ko ankay mooy dama ko bëgg a gis ponkal ba ak muñ mi kaalaam gu rafet bi mu agsee mu ne ko dama bëgg ñu woote référendum bii cinquante huit dama bëgg ñu woote ko woy déglul de intellectuel ah waaw baax na président déedéet ndax suñu wootee wuñ tey bu situation te xool nañ ci suñu intérêt gis ko wootee wuñ buñ demee beneen situation ñëw ñu analyser ko gis na noonu lañ war a wax ndax dañu ko def mën naa nekk mën mu ko bu baax mën ko danañ ko wootee ñëw ci gàmmuwaat daal ne ñun duñ noonoo duñ wootee non dañuy faraana wuy yonent bi ba bët set ñu wootee wuy yemu ca dafa jël xëri mbaam Haute-Volta euh, Niger euh, Soudan muy Mali bépp réew buy làkk français te am fa taalibe te moo mu wax ak jeunes yëpp ndax ñoo amoon fi mu nekk nii euh, électoral bi seen loxo mu seet muqaddam yi nga xam ne ñoo élif ñoom ñëpp mu bind leetar jël benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi moom la utiliser ci goreel ci ci ci li nga joxe indépendance ci mboolem réewu Afrique yi nga xam ne ñoo laaj aw jël leetar bi lu mu wax ida fataha allahu baaban min alxayri fantahizuuhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na noonu li mu ko njëkkee moo garaaw mooy ne man Baye jàng naa constitution bi projet référendum bi ñu war a def référendum 58 jàng naa fekk naa ci njëriñi Sénégal fekk naa ci njëriñi France fekk naa ci njëriñi Afrique waaye li ma gide ba may oolee ne leen bi nga xam ne mooy référendum bu 58 bi na ngeen ko wootee te ngeen wote wuy yéen mooy hadis yonent bi moo ma gide gannaaw moo ci gisee njëriñ daf ne yàlla daf ne bu fekkee ne yàlla ubbil na leen bunti yiw gaaw leen ngeen occasionné wu xamu leen koy tëj hadis bii la bàyyi def leen yónnee ba cooto Mayaati ca Cheikhu cooto ci Niger yónnee ko ba Mali yónnee ko yónnee ko yónnee ko fépp fu xadam te boobu moom kenn mbooleem fu nit te xam mayam yi ñëw nga jël ko lettre boobu moo tax Afrique ma leen bi mu demee gaana kurma ñaan ko loolu mu ñaanal ko yàlla du sëriñ boo xam ne yaay lu grand docteur jërëjëf du sëriñ boo xam ne sëriñu der la ak juma ak toog di wirlo rek déedéet dafa bi ko bi mu ñaanalee pour ma ba pare dafa dem ci association bi nga xam ne mooy association bu bu bu Glogos euh, Muslim Association ne leen jaay leen ma carte membre ñu jaay ko carte mu def ci poste ñu ne am nañ membre bi yëpp nit mu ne leen li ma bëgg ci yéen nag mooy gis naa jeune boo xam ne gis naa ndaw loo xam ne bu jotee ci Ghana Afrique yëpp danañ am teewal jël leen seen organisation bi nga xam ne mooy bu jeunes yi ngeen appuyer ma parti bu Kurma moom mouvement boobu moo appuyé Kurma Kurma daal di gagné ñu génnee ko ci kaso bi dugal ko direct ci palais keroog bi bàyyi di ñëw Rolls Royce la ko teertoo lalal ko tapis rouge bàyyi ñëw fekk mbooleem jullit ñi nga xam ne ñooy kilifi gaana ñoo nekk ca bu njëkk ba sol seen mbaxana yu weex yi ak seen kaw yu weex mu xam ne lan tigoo def na kooku mooy intellectuel te ñun yaay itam noonu lañ mel fa la daan yónni Moulaay Alxaaj Abdullah fa la daan yónni Baye euh, Omar Roqi Ñang euh, euh, Habib Ñang ilaa kon formation yi ñetti génération yëpp am na résultat bii nga xam ne nag mooy bu mooy bu teel bi wax naa ne ci am na ziiru Baba Lamine Europe ak Afrique dajal na ko ak ay muqaddam yoo xam ne ñoom ñëpp ci genre colonel Thiam bii kaay yaa ngi sa borom a ngi ci jàkk ak jano te du tere nga nekk colonel du tere nga nekk général du tere nga mat ci économique bi du tere nga mat ci football ba même Makka teg na fa ay muqaddam moo fa njëkk a ubbi ci biir Makka ñuy sikkar di wasifa suudan yëpp nag ni mu jógee nii Gaana noonu la jóge woon Nigeria bu yàgg noonu la jóge woon fu ne parce que bàyyi moo ko wax doon leen ko beneen garaa ne ko limaam yëpp ci mbugg la yoon ci yàlla Muhammad laa ko ma ki ma wóolu nag ba ki nga xam ne moo waxoon ci jongoma jëm noboon ne ko nob naa la nobel koo xam ne li may doy ci yow mooy su may dee defal procuration koo xam ne daf lay nobee ni ma la nobee kon nobel ak yonent yàlla Muhammad bëggeel yonent yàlla Muhammad Mouhamadou Lamine yow laa ci óolu ahimu bi daati maa xayaytu wa in amul wakkil bi daati man gis ngeen jalaalam bii nga xam ne reenu ko jaxe da ngay xam li gis nga li mu wax nii ne daf ma daan yóbbu ci bàyyi bés dañoo ne ko tey laa xam ne bu ne du ma loo defati xam nga yàgg ngaa <coughs> ma ne ko bi ngay di ngeen ngeen ñii jógee ko woon Mali ñii jógee ko fu ne ci àdduna bi bàyyi di réglé àdduna bi ana diw sama muqaddam du mel noonu xam naa bu ko fekkoon tey ndaw réglé problème bi nit ñi nañ xam ne kenn du jomme ñaar yoon te bàyyi jommale na ko bàyyi kenn du jomm ñaari yoon waxambaane bi mu toogee ba quatre heures de matin mu ñëw ci daqaar gi nga xam ne fi la jinne yi jombal jinne yëpp dem jombale ji màggatam jinne mënta dem des ko mu teg seesam teg lante di wuy moom nit ki bi ñëw baag si ne ko doom xanaa dangaa bëgg jombe mu ne ko man damaa jombe ba pare de ñi nga xam ne ñoom la Seydi Aliou résultat bu garaaw baa ngi noonu bàyyi ñi njëkk a defal formation xam ngeen lu mu leen seedeel daf leen ne su ma demee Màkka 37 génn àdduna yéen ñii yéenay jëriñ àdduna bi yëpp ket yonent Yàlla Muhammad ñooñu ku ñëw nañu ñooñu dégguñ bàyyi dégguñu waxi baay man maa dégg baay man amoo sa tontu Fati dégg nga wax naa la Cheikh Mouhamad Nazir wax naa la Cheikh Maay ci tafsir bi wax naa la Cheikh Aqibu ci daayira yi mu feesal rek Sénégal wax naa la Macky borom ba gàmm mooy international déedéet foofu lay mujjee ci génération bi kooku Baye daf ko defal beneen formation spéciale boo xam ne dem na ba jàpp ne intellectuel la Baye bett ne ko des dafa jàng ba am diplôme yëpp ñëpp asar lañ jëndee mais maam asar ñu ngi génnee ayni shams ñëw lii bi jël ko appel islamique bu lii bi jël ko jox ko solde mu mas sa jox kenn ba pare affecté ko maamam lu gën a neex loolu mu kontaan loolu bind maamam lettre jox ko nijaayam fi mu makki ne ko boo demee ne <laughs> sama ne ko alhamdulilah jàng naa pare naa am naa diplôme jël nañ ma solde bu ngand affecté nañ ma ko liggéeyal islam mooy surtout moom laa ciy ànd foog na pare mais xool leen intellectuel bu mband ba foog jëmam moom bi mu ñëwee mu ne ma mu jàngalee tar bi rek daal di wal paxi bakkan wal paxi bakkan nag am na beneen histoire gis nga keroog bi ñu ko aayee fii di nangoo passeport bi ci aéroport bu Yoff ne du dugg ci avion baabu fay moo ko doon nettali baabu maa ngi toog ne ko keroog man la fa fekk moo nekk directeur Air France bi amoon aj baabu fay la tudd mu fàtte mu même commandant bi téye woon passeport yi bàyyi avion oto yi yi téye Saloum ba fii pënd bi jóg gars yi xam naa dañ naan wax benn président moom ci réew mi wala ñaar c'est c'est li oustaz doon wax <laughs> c'est le roi de quel pays <laughs> bàyyi sañu aadi moo dem bi ñu ne ko passeport bi du tukki téere mu ñëw ah seen waaye yow ñàkk nga fayda la wax dama ngeen ma sama passeport ñàkk fayda wax ci daal waaye ñàkk fayda góor gi mu nekk état yi man mu dem dëkk dara amul mu jóg dóor kaan bi kë kë avance jëm ko aéroport commandant ne ko ah mais baabu góor gaa ngi dem di mu ne ko mi ngi dem di mu ne ko loo ci xam mu ne ko li ma ci xam dëgg zaayir kese waaw mu ne ko xam naa ne li muy dóoree étam bi muy aw ci suuf si ak paxi ba kanam yi ni muy wolee jël ngelaw soo jaaree diggante ak avion bi bu la dóoree dóoree ko ràmp loolu xam naa ko baax baax xaw góor gi àgg première classe sànnikaan bi la xati personne Senghor mi nga xam ne moom xam na li xew te boobu mi ngeen jàppante ay ponkal yu tabaxoon kase nu dañ cee tëj sëriñ si gaaw defal passeport ci palais bi baaxoo na ko mu fekk bàyyi ci kaw te bàyyi bi muy dugg li mu wax moo garaaw mooy leen bàyyi leen leen ko xanaa xamuñ passeport lu mu jëriñ li mu jëriñ mooy fooy wàcc ñu xam la te man ñi ma yooyu te xam nañu ma yaa ngi dégg foofu wali paxe bakkan moo fa dugal xaw ma maa ngi war fanati dégg nga hmm? imaam Hasan mu wal paxe bakkan yi rek mu xoñ mu xoñ leetal rek doof ci poos bi amul tontu amul dara aju ah suñu mag kii itam génn jàmm mu nga ah ni yaay mag ki ana leetar ba leetar ba loolu moom moo xool dugal ci poosam ba ok ah ah kooku di ñaan yàlla yàlla fàtt bàyyi fàtte bi bàyyi daf ko daan bindaloo leetar su ko laaj laaj yi diine ñëwalaan daf naan ko ana xasan daana ko def loo baaba lemin di ko bëri demal ci téere bu ñuy wax mais yaarul muhar muharram yaakaar naa douze volume am na lu ko ci ëpp nga seet volume tel nga ubbi fasal nangam nga seet da nga fa fekk masala mi nga tontul ma ko boobu limaan Banjul yaakaar moo laaj ma masala imaam ubbi fekk ko fa tontu ñëw mu ne ko ah Hasan téere boobu nga kañ laa ci géej mu ko ah, mu ne ko moo ci géej léegi ñeent imaam ne na fekk naa mu rëdd man damaa daje xam-xam jëmm ja ba am ndigal imaam ñëw di ndiir nag pour fàtt ne fàtt na loolu ah mu ne ko eh naa li nga waaye bu fekkee li la neex ngay wax ci ngay def li ngay wax ko su ma yoon waaye bu fekkee li ma bëgg ngay def te mooy li gëm li bi mel ni kënu bu dalee ci ne ko da nga dem London nga jàngaat ah ku pare woon gis ne yëpp jeex na ko delloo ci daara su fekkee li may wax. moo ngay def te mooy li gën da nga dem loolu noonu laa wax nga jàngi anglais maanaam lii du dara pour yow loolu isa imam asam xamutoon fu mu nekk mais fekk bonkal mu intellectuel bu mag bi mi ngi ko amee ndax xam na ne mission mooy jël xeetu yonent yàlla Muhammad yëpp yóbbu leen xadratul qudus te am na foo xam ne dañoo soxla langue bi te boobu bu moom mais préparé na ñeneen préparation boobu mooy danaa la yóbbu loolu ak moo leen moyen nga jàngi mu commencé lay woo xam ne bàyyi foofu maam maam xanaa ko moo foofu wax wax wax ni mu jafee ni mu nii naa bourse ak kii ak kii visa wax wax wax ba pare bàyyi na ko yooyu yëpp sa yoon newu ci ci gàttal nee na ma bi may wàcc fekk na ñu ubbil ma porte awma fa benn xarit mënu ma wax ak kenn su duggee fi may jàngee bu may ñëw alxuraan ji ma mokkaloon laay jàng waaye bu ubbee suma boîte postale fekk fa invitation boo xam ne bu ma demee dajeek ponkal fu mujj ci gàttal dem na ba Carter invité ko ko Atlanta ne ko jamais étrangère dañoo problème bu amee foreign secrétaire secrétariat bu bu bu jamais étrangère te problème bi yow lañ ci yaakaar mun ne ko waaye ministre président man du ma politicien mu ne ko looloo tax ñu taamu la ci parce que bulletins yi résultats yi dañoo échec si yaa ci boppam wax nañu ne yéen a ci mandat ak bàyyi surtout Imam Assane mu ne ko lan la mu ne ko dama lay bégal gis nga bi nga wàccee Atlanta tey mu ne waaw chrétien bu gëm yàlla na la seen yàlla yooyu mu ne ko bi nga wàccee tey yàlla ji dafa taw moo tax maam yaakaar ci sa yoon mu ne ko ñaareel bi big boss mooy ponkal yooyu takk mel ni ay weñ di mbëkkante di sànni bal bi di tekk tànk di damanteeg yow mu ne ko équipe boobu bu Atlanta masta gagné coupe d'Amérique tey bi nga wàccee gagné nañ ko moo tax maam yaakaar mun na ko lan la mun na ko ñetti problème diplomatie bu garaaw a mun na ko Sud Soudan day waaj a xar ñu def ko ñaari réew te Bachir mënuñoo wax ak ñoom faale woon yow lañ ci yaakaar mun na ko xam ah, numéro 2 mun na ko Obasanjo ak Sani Abacha kee sama xarit la kële def ko coup d'état ba pare def ko surveillance euh, zéro euh, résidence zéro def ko tëj kàddu dama bëgg nga ñaanal ñetteel ba Liberia ba mu pare. imam jël avion cëppeel ba ci gën a reer bu may mooy ñaar président bi nga xam ne mooy euh, Sané Abacha bi mu ko recevoir ne ko carte daf ko sànni loxo na ko gis imam mu ne am na ko bu mu ñu fontoo américains yi dañoo yab dañoo foog ne ñoo ko dara lu may mayee yow laa koy may mi ngi ci kaso mu laa ah, mun a ko noto ngi léegi dafay génn ci sa tur yow ma yóbbu ko résidence surveillée waaye ne ko moom mayu ma ko dara faale boobu bi ko euh, Obasanjo recevoir ba mu ko koy nett li ba génne copie waa ji dafa tiit ba owul secrétaire bi ne ko may ma waaye sëriñ bi ma doo copier ko mu ne ko toogal man maa ngi original bi <laughs> fi may jeexalee résultat wu formation bàyyi ci seen jeunes yi pour ñu mën a jëriñ seen réew ak àdduna xam nga imam def na université Dakar def na clinique Medina Baye sanc na nguur Atlanta li mu tuubal ci américain loolu moom beneen affaire la kañu fi waaye fi muy tëjee mooy secrétaire général bu Nations Unies Boutros Ghali bu Égypte moo wàcc di pays anglophone pays francophone war a yéeg te xam ngeen France ak doole man mosuma xam ni France amee doole lu mooy keroog biñ ne Dakar ndox mi ral ci guerre dafa dakk ci bi mi mu turé dugg ci avion bi moom Macky Sall ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar affaire huit heures pour Dakar naan ñu ne dafa yëkkati téléphone am oo pour ñu naan imam Assane téléphone ñëw ñu ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne France ne benn pays francophone du nekk secrétaire général ñaari yoon te pays franc bay ba anglophone te francophone ne fi Boutros Ghali wàcc na Égypte la anglophone la francophone moo yéeg benn dossier du fi jàll huit heures waa nii xaj ci étam teg Amérique ci daal Kofi Annan ca gaal mi nga xam ne moom la bàyyi ñaanaloon ca kurma daal di posé candidat daw contacté Medina Baye ne ko ci yéen lañ la Imam Hassan contacté Abdou Diouf Abdou Diouf contacté France France tegaat condition daal ne ko condition ne dégg français bu tous daal di gën a dégg ñëpp français keroog ba mu faloo ba toog Nations Unies di secrétaire général bi mu dóoree téléphone bi fekk imam a ngi New York ndax dañu ko sëñ baa nga New York kii la dimbale lu téléphone bi sonné keneen na uyu parce que boobu mu ngi téye li nga xam ne mooy kurusam jublu xarfu ndax élimaan yi farata ak sunna penku lay jublu bu dara desut lu mooy naasiril xaq bil xaqi te ñooñu ñoo amee mbir mi ba ba àdduna bi tukki moom xarfu lay jublu dafa fekk imaam bi téye kurusam jublu xarfu naasiril xaq bil xaqi keneen na ko uyu moom ba mu amee jot ko soo uyu kon résultat yu Ibrahim bu defaree formation ñeenti génération waxuma jëriñ Sénégal waaye mën nañoo jëriñ àdduna bi te ba léegi kon lan laay tëjee mooy yéen ñi nga xam ne yenn a oote bi wax naa leen ne intellectuel bi bàyyi jublu ci ndaw ñi nga xam ne seen avenir réew mi ngi ci seen loos mooy ndaw lu am culture xam nga waa ji nga xam ne moo amoon problème ci mburu mi ah góor gi analyser na affaire bi war ko ne ko mburu ñaari bopp la yéen nag yéen ñi santaane conférence yéen a ngi ci université yi yéen ci net bi ci li am njëriñ ak site yu am njëriñ yi léegi Sénégal lan la soxla ci wàllu économique mais yaram dafay daw ngir yàlla jeunes yi nga xam ne ñooy def ba nañ ñu dimbale def es damaa dem dugg benn hôpital bu mag bu Kaolack problème yax nii ci mbagg quatre heures de matin ba onze benn docteur boo xam ne bu accident amee ak li muy bëri bëri ci route nationale benn docteur mooy opéré bés dafa opéré ba tuñ ñu dem benn benn benn waa bu jógee beneen réew mooy xam ne moo secondaire keroog man moo seet ñetti région ñetti région Fatick Kaolack ak fi nga xam ne mooy Kaffrine benn cardiologue docteur Thiam moo fa demoon mën naa am formé na kenn ma nga ca taalibe bàyyi bu baax kenn accident yi ngeen dégg yëpp yàq gis naa ko koo xam ne weñ ñuy dugal ci tànk bi dafa dem ba commencé soppeeku si sûr que dañ koy dagg parce que am na six mois mënta am rendez kon ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéenay jeunes yi te bàyyi ne avenir u société bu nekk mi ngi tege ci seen loos kon bu Sénégal ci seen loos la mooy ndaw loo xam ne dafa am xam-xam dégg nga am culture am hitte ju kowee hitte ji na àgg ci nañ duur ne toujours elle elle elle nañ jël es nañ jël science man ku ma laaj mu ne mu ne L rek dama sama cas waaye S nañ ko jël parce que damaa gis problème mu cardiologue ñetti raison benn docteur dégg nga pa ko yéen euh, opéré ñetti raison benn docteur bët bu sa juróom-ñaar fukki nit ko nekk du leen mën a dajal nañ leen dem ci S kon li may tëjee sama conférence mooy responsabilité boobu bàyyi wax yéen ñi nga xam ne yeneen jeunes yi te yaakaar leen ci ne yéen a war a elu réew bi analyser leen Euh, phénomène yi nga xam ne moo composé problème yi nga xam ne yi moo tege ci kaw loosu société Sénégal ngeen def diagnostic diagnostic bi seet bu ci nekk ñeent góor la soxla fu ñu war a jaar lu ñu war a jàng ñi nga xam ne ñoo mel ni docteur gi Moubarak war a encouragé gën a am ñuñ encouragé kon mbir mi bàyyi nee na yéen la waaye ci condition ngeen nekk homme de culture ci niveau bi ñu wax mën a analyser mbooleem situation yi mbooleem phénomène yi bu ci na ngeen teg ko place am waxtaan ñi nga xam ne ñooy nux ba ñooy ñi nga xam ne buñ jëlee décision ànd ca ñëpp ànd ca neex naqari lay doon su boobaa luñ bëgg a réglé danañ ko réglé ñu ngi jégalu ci guddal bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بلغ مولانا رسول المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد المساعدين عبد الرحمن بن عوف وابي عبيده بن جراح وحمزه بن العباس وجعفر الواقي والحسن والحسين وفاطمه وخديجه وعائشه وسائر امهات المؤمنين رضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم لهم به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القران العظيم امامنا وقائدنا الى الجنه ولا تجعله ربنا سيئا الى النار اللهم اجعل القران العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا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 يسرني وعافية إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عقبته رشدا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 يا ربنا أنت ترى ما قد جرى وسمك من علينا يسار يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضياع الحرج وامدد علينا من حماك الأمن إصرارك من حل فيه اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يقهر ولا يضام اللهم انا نبرا بك في نحور الاعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا ذكرنا وانسانا وحرنا وعبدنا حاضرنا وغائبنا داعنا واعصنا اللهم اغفر لنا اجمعين المسلمين شرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه دبر ما تلون أو هدية واصلة وسواء متصلة إلا بعد القبول إلى أرواح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين شيخنا وسيلتنا الى ربنا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل